على من علي ولا زوزني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 jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yaa rahmaan yaa rahim di julli ci sang bu tedd bi di sëlmal ci moom di ko ñaanal jàmm moom ak ay saxaabaam saxaabiyatam taabi'iina lahum bi ihsaan ila yawmi diin ñaanal mag ñu baax ñi fi jiitu woon te def ci jëf yu baax ba tey seen way fayu waaye di ñaanal suñu sëriñ suñu wasila suñu cheikhul kaamil sëriñ Mbàkke Abdoulaye yàlla na fi yàgg te wér te yàgg ànd ak ñun gindi ñu ci yoonu siraatal mustaqim delluwaat di nuyu mbokk jullit yi ñuy lu fii ci ëttu soxna yu baax yi di leen ndokkeel di leen sargal te di leen ñaanal taw tawféex ak tamkiin ak ridwaan ñaanal ñi nga xamante ne ndeysaan ni way daw luy la waaye ñaanal ñu tëdd ci lalu tawati ak ñu nekk ci jafe-jafe àdduna yàlla suñu borom sotti leen ay xéwal di desuwaat ci suñu daxsu bi nga xam ne ñu ngi ko dippee watawaasaw bil xaqi watawaasaw bi sabri muy ñaari baat yu mënul génn ci dund doomu aadama muy dëggu ak muñ ndax yàlla faw nga dëggu pour sa dund neex faw nga dëggu pour nga mën a jub waaye faw nga dëgg pour sa diggante ak sa borom mun a yemb waaye faw nga dëggu ndeysaan ci say morom julit pour sa àdduna ndeysaan jub alaakuli xaal euh, dëggu nag dafa jafe si suñu jamono yu ñu nekk waaye nit bu fekkee ba ba dimbali boppam ba musal boppam muccal boppam ci lépp loo xam ne caaxaan la te dëggu ci boppam rek moom moom raw na moom allah àdduna ak kon nag euh, dëggu dafa nekk li njëkk li mujj te mooy defar dundu doomu aadama mooy stabiliser doomu aadama waaw moo ko jox estabilité mhm. fa tabaarakallaa bu ñu fa jógee nag eh, di wax ni nattu moom àdduna dafa dafa daf ñu yàlla daf ñu mooñaale ñun jaamu yàlla yi ak ay nattu ak ay musiba ak ay balaa foofu ñu di ko muñ nag bu dikkee ci suñu àdduna ñu xam ne lii yàlla ñu ko teg bu ñu yuuxu way jaay yooyu bu ñu jaaxle te xam ne nag borom bi moo nu ko wax ndax ñun tamit ñoo nangu woon waaw ba tabaarakallaa représente suñu borom fii muy lu ñu ci àdduna di ñu teg ay nattu ñu koy muñ waaye diñu tegi balaa ñu koy muñ ba pare nag dugal lañu ci ne képp ku ko muñ ëllëg naa la keral moo ne inna innallaaha ma saabiriin kon nag jaamu yàlla day muñ ay nattu te dëggu ci boppam dëggu nag ndeysaan dafa jafe waaye nag soo ko xasee ba miine ko sa bopp ba ñeme ko rek da ngay dëggu dootoo muniti dara loo xam ne ci gannaaw dëgg la ne fa tabaarakallaa ndeysaan ñuy waxtaane tey nag soxna su sell su tedd nga xamante saarata ak xaajara ndax tey moo indi lii ñuy wax ne aju màkka eh, ndax aju màkka moom dafa nekk ndeysaan eh, loo xam ne lu amaam solo la fa tabaarakallaa am histoire nag bu bu bu bu xamante ne ni jigéen bépp jigéen rek war na bokk ci saxaabiyaat yooyu waaye war na bokk ci soxna yu sell yooyu soxna yu tedd yooyu waaye war na leen roy teg seen tànk teg ay tànkam fa soxna yi daan teg seen i tànk ndax soxna yu ragal yàlla lañu woon yu am taqwa wéetal seen borom daaw toog seen borom di déyanteeg moom waaye macha allah fa tabaarakallaa topp seen ndigali borom kër waaye bàyyi seen i ay tere fa tabaarakallaa macha allah yan ci yàlla Ibrahim xalilullahi nga xam ne xaritu yàlla la woon fa tabaarakallaa donte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag ndeysaan mooy xaatimi nabi inaw imaamil mursalin doon ndeysaan soppe suñu borom bi alayhi salaatu wasalaam ndeysaan sang bu tedd boobu waaye Ibrahim xaritu suñu borom la woon yàlla boole woon na ko soxna su sell su tedd suñuy wax soxna Saarata mu nekkoon soxna su taaru su rafet soo xam ne macha allah rafetaayam jéggi woon ne doyo ndax ndeysaan taar bi ko yàlla may yàlla nag mooy may taar mayen na ko euh, maam Hawa fa tabaarakallaa ndax maam xawaa dañ naan euh, gannaaw maam Hawa soxna euh, Saarata moomu moo ci topp ci taar ndax maam xawaa dafa taar woon. kon yàlla bind na doomu aadama ci taar bind ko ndeysaan ci melo boo xam ne boo ko gisee rek mu yéem la fa tabaarakallaa kooku suñu. borom la allah subhanahu wa taala magayam waye neesane histoire soxna sosu nga xamne moy mooy Saara ci à l'âge de 17 ans yàlla def may nako borom keur juñu wax yent yàlla Ibrahim khalilullah di xaritu yàlla radiyallahu anhu ndeysaan mi nga xamantene ni fa tabarakallah dundam yep mu ngi ko tek ci jamm yàlla waye top ndigal borom bay ay terem waye wetal boromam waye ndeysaan deg kàddu boromam. fa ma sha allah ñu ko yàlla bolé som soosu ñu xeyna dem ni dañuy dem misira ba ñu demee nag ndeysaan dëkk boobu nga xam ne mooy Missirah bañ fay dem wax nañ leen woon ne leen dëkk ba am na buur boo xamante ne moom jigéen lay bañ gis rawatina na jigéen ju rafet waaye ba fi Ibrahima alayhi salaam àggee ndeysaan moo ko soxna sell soos yi saarata ah, nga xam ne àdduna eh, lii moo tax ñu naan agent secret du fi jóge waxkat yi duñ fi jóge nettalikat yi duñ fi jóge ñu ngi fi fees dell te lu seen yoon new rek la ñuy lijjanti ak di ko làmbar ci di ko yóbbu waaye di ko ndeysaan joxe fa tabaarakallaa macha allah ba nu agsee si dëkk boobu nag am na ay gars yoo xam ne ñoom dañoo dem ca buur ba daal di ne ko am na waa joo xam ne wàcc si dëkk bi waaye bi muy wàcc si dëkk bi gis nañ mu ànd ak soxna soo xam ne taaram ngi moom jéggi na doyo moom ndeysaan taar gi moom jéggi na doyo taar gu rafet la am kooku moom dina baax pour yow ndeysaan buur bi ne ko yaa ko gis mu ne ko maa ko gis samay bët mu ne ko doxal indil leen ma ko ba ñu demee nag fekk fa ndeysaan Ibrahima alayhi salaam ndeysaan yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam ñu fekk ko fa nag daal di na ko yow la kan mu daal di présenté wu na moom la yonent yàlla Ibrahim waaye waxu sax ne na macha allah macha allah ni bërëm këru ndeysaan saaratal waaye dafa na ko ñu ne ko kii nga jigéen ji nga àndal lañ soxla woon buuroo ko soxla maanaam mu ne leen ah kii di sama rakk la ndeysaan ñu ko nag buuroo ko soxla neen na ko ñëw wuy si waaye nga gis ni soxnaam la de naam waaye nag bu waxoon ni sama soxna la moom dañ koy rey ndax buur ba moo mel noonu moo mel woon noonu waaye nag dafa ne sama rakk la ndax rek ndeysaan fegal bu fegal ba kanam waaye noonu la ñu jëlee soxna sa nag ànd ak moom daal di dem ak moom ca buur ba daal di yëgal buur bi ne soxna si ñëw na buur ba yëgal leen ne leen dugal leen ko ci néeg ngeen jox koy takkaay ak mbub yi rafet yeeg taar-taar yi mu solu te préparé xaar ma ma ñëw nga gis na nag buur ba moom yàgg na koo def ndax dañ naan ah, am na jiwoon yoo xamante ne yàgg nañ ci àdduna maanaam am melo goo xam ne gu safaanu la buur ba nag da cee nekkoon góor goo xamante ne moom moom daf ci jéggi woon dayoo ndax nekkoon na góor gu safaan jigéen ju mu gis am ci moom li jëmbiti ko jigéen ju taar gu mu gis woon moo gën ci moom moo ko yeyoo waaye nag bés bii lay jaaxle te lay ci lay jommi fa tabaarakallaa macha allah ci soxna su sell soos nga xam dafa wéetal boromam ragal boromam am ataqwa waaye gëm ni yàlla rek moo fi nekk te kenn du yàlla ku dul moom ba mu ko dalalee nag soxna sa ñëw xool or yaag takkaay yaag yépp waaye lépp la fa teg daal di jàpp ndeysaan yeesal njàppam julli ñaari rakk daal di lo boromam kon nag jigéen bu nekk warna naa jàng ci jigéen jooju ndax adunabi, àdduna bi da ngay dee ba fi alul àdduna bi day seey laata ngay génn àdduna sax yàlla mën na ko nangu say loxo jox ko keneen kon dara fi jaru fi jaay sa ngor yàlla rek moo fi nekk te santaane yàlla ngay dégg te loolu mu def yàlla sant ko loolu mu loolu mu bëgg a def lu ko buur bi bëgg a def buur bi sant ko ko sant ko yàlla yàlla dafa na jubal leen te ngeen ndeysaan seen ay pëy sàmm seen bopp mu ñaan boromam ci ñaan yu màgg yu tedd yooyu ne ko yow yaa rabbi yaa allah ba ma nekkee xale nga xam ne aw woon borom kër mosuma oyof sër mosuma fooye sama bopp du tey ba tey ji laa dem di am borom kër nag di fooye sama bopp yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci buur bu bon bii musal ma ci góor gii bëgguma def lu ma bëgg a def rek yàlla ñaan naa la nga musal ma ci ba ma raw ci ay loxo suñu borom bi allah subhanahu wa taala dégg ko ndax soxna soo soxna su sell la ñaan na ñaan boo xamante ne suñu borom dégg na ko ci saa si yónni malaaka ya buur ba ak si fekk soxna si taxaw mu daal dina ko xool ko na ko yow moom sa rafetaay gi moom yéema ma yéeme na ma di yow ni nga taaroo yéem na ma di daal di yëkkati loxo bëgg koo teg tànk ba demul loxo ba demul buur ba jaaxle daal dina ko lii lan la mu daal dina patt xool mu ne ko lii lan sa yàlla gi nga ñaan boog mu ba ma waxal ba bu ma bawee duma la laalaat ndeysaan mu ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko malaaka ya ba ko mu delluwaat de tegaat ko loxo ndax xam nga di góor gu caacaay moo mel noonu dellu tegaat ko loxo soxna sa ñaanal ci yàlla yàlla suñu borom tamit yëkkatiwaat cër ya téye ko waaye ba ñetti yoon fa tabaarakallaa macha allah ca nag la na ko bii paa duma la laal bàyyi ma ñaana sa yaay yàlla gi mu ba ma dootuma la tegati loxo pare naa ca yow kay dama lay yebal nga dem yow macha allah daal di jël soxna sa nag woowaa dëkk ba yëpp ne nañ génne luy alal jox ko waaye du yemu ca mu daal di génne ab jaam may ko bu ñuy wax Haajara foofu la histoire bi nag tàmbalee ci dund boobu fa tabaarakallaa bañ ko ba mu wootee daal di ne Ibrahim jëla sa rakk ji da nga ànd ak moom dem may naa ko alal may ko ab jaam nga xool nag jigéen lii nekk ci àdduna am na yenn góor yoo xam ne dañ lay chantage am na ñoo xam ne dañ leen dañ laa bëgg te mbëggeel bi dañ ciy def chantage ñii di la bëgg di teg condition ñii di la bëgg di teg leneen waaye xoolal soxna su sell su tedd soosu nga xam ne bëgg boroom këramam wóolu boroom këramam ànd ak boroom këram ñaan boromam yàlla fegal ko seytaan musal ko ci seytaan musal ko ci cat musal ko ci buur bu bon boobu nga xam ne jigéen ju mu gis rek am nu mu siy xaj yow fa tabaarakallaa kon jigéen ju nekk war naa bàyyi xel ci wor war naa bàyyi xel ci fooye sa bokk ndax alalu àdduna yi nga xam ne da ngay dee bokk fi war ngaa bàyyi xel ci say jëf yu rafet ak jëf yu safaan ëllëg si biir da nga wéeti sa biir bàmmeel kon nañu mel ni jigéen ji nga xam ne mooy soxna saadata bokk ci saxaabiyaat yi fa tabaarakallah macha allah noonu nag la ko buur ba joxee alal ba jox ko jaam ja jaam bi ñuy wax hajara mu ànd ak ibrahim alayhi salaam daal di dem waaye ba ñu demee ku nekk xam na ni soxna saadata ak Ibrahima ak euh, ndeysaan yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam amuñu njaboot waaye ba ñu demee ak diir macha allah fa tabaarakallah soxna bi Sarata daal di yëkkati alalam daal di yëkkati ay takkaayam yëkkati jox ko borom këram Seydina Ibrahim ne ko joxal soxna si Sarata mel naa la ko soxna te nga jox ko li muy premier cadeau waaye xoolal loolu jigéen bu nekk nag war nañ ci mbokk daara yi lii day tax. kenn du du du am keñaan ci sa biir mbokk daara kenn du am soxor ci sa biir mbokk daara te di nga fi jàngee ne euh, sama digganteeg mbokk daara dinaa fi jaamu yàlla jaamu fi yàlla lu ma sama borom gërëmee sama digganteeg mbokk daara dinaa fi rafetal lu ma sama borom gërëmee sama digganteeg mbokk daara dinaa fa def xeetu baax baax bu ma gëm sama biir xol te àndul ak dara ngistal lu ma sama borom gërëmee nga defar ko ba mu rafet ndax ñun fii Sénégal dañuy jël ay mbokk daara maanaam def indi mi suñu diggante te mën naa ñàkk nag ah ndeysaan ànd jaamu yàlla la sey jaamu yàlla la yàlla suñ borom moo daganal loolu ci jaamu yàlla yi kon nag dañ koy rafetal ndax soxna soosa xoola tey yëgati na jaamu buñ ko mayoon mu jox ko borom këram yamatu ci mu jël alalam def ko ci ne ko jox ko muy premier cadeau kon kooku dafa bokk ci jigéen gën a noobul ndaa loolu élégance la fa tabaarkalla jigéen ñëpp nañ ko jàng nag jigéen ñëpp war nañ ko jàng ci jigéen jooju di saarata nga xam ne fiiraange bi ku bëgg fiir dëgg la waaye nag am na loo xam ne bu mu la ko jaral rafetalal rek te nga jaamu yàlla ci sëy bi waaw jaamu yàlla ci sa mbokk daara yi ci njaboot yi jël sa njaboot def ko ni seen njaboot jël ay njabootam def ko ni seen njaboot lépp rafet ndax yàlla fa bëgg lu taaru lislaam lépp taar la ak teraanga fa tabaarakallaa ba sëy boobu amee nag yàlla suñu borom def ak diir mu am doom bu ñuy wax Ismaahil Ismaahil nag ndeysaan nekk histoire ci biir macha allah tabaarakallaa Euh, ci histoire ci yoonu màkka boobu nga xamante ne ni doom joo xam ne la woon ah ba soxna sa àndeek moom waaye ndeysaan ñuy dem di dem ba ñu ne leen nag euh, comme nag yàlla suñu borom digal ko nag ndeysaan yonent yàlla Ibrahim ne ko jëla soxna sa nga yóbbu ko soo ko yóbboo ba bërëb bii nga teg ko fa ndax nag mu bañ a sonal soxna si ndax soxna si baax na loolu moo la ko may yëkkati mu jox la defal la teraanga boobu nag bu mu ko déranger di ko sonal mën naa dem ndeysaan lu tax indi ma fi mu ne ko sama borom moom moo ma ko digal mu ne ko comme sa borom la ko digal na dinaa fi toog waaye dégg ndigal boo mu dégg borom këram ci ndigal waaye moo ko may tey lii li mu am yëpp fa tabaarakallah kële dégg ndigal ak bëgg borom këram ba yëkkati soxna soos may ko ba mu am ci doom moom it moo ko may lii nga xam ne kii am na ismahil kii am na isaaxa waaw sarata am na isaaxa waaye tamit hajara am na ismahil nga xam ne euh, ndesaan isaaxa moo jur yent yàlla yanquba yonti yàlla yanquba macha allah fa tabarakallah saata juux ndeysaan fa tabarakallah yonti yàlla ismaahil kon nag yonti yàlla ismaahil nekkoon xale yàlla santaane yonti yàlla ibrahim bàyyi ko fa ak ndeyam muy hajara waaye nag ba nga ko fa bàyyee ndeysaan ñu nekk fa ah doom doom ja soxla ndox di jooy waaye ni muy jaabantee di dem ak ñëw di ñaan boromam nag di dem ak ñëw ci ci désert boobu te ba bam bala li fa nag eh, yent yàlla Ibrahim di bàyyi dafa ñaan boromam ne ko yàlla yow dëkk bi nga xam ne amul dara ndax désert laa leen bàyyi amul dara dëkk bi yàlla nga def mu naat yàlla nga def lépp lu fi lépp loo xamante ne rek ndeysaan ñu ngi koy bëgg ci fur wi ci lekk bu baax ci xeet lekk yu baax ci lépp loo xam ne teranga la yàlla nga ko sotti ci dëkk bi moo tax màkkatan mukarrama boo fa demee fur wi du fa saxee yenn fur wi fa saxee mais boo demee benn fur wi wu fa waaw li ci leg li teranga yep ma nga mak tan karam kon nak nga xamne ne kon ñaanu ibrahim bobu yalla suñu borom nangul nako ko te lepp rek ndeysaan ci suñu borom ak taqwa mi ragal yalla ak wóolu ko topp ndigalam kon jam non lay mel da ngay ñaan yalla ndax yalla mo ne ñaan ma may ma may leen bi sallallahu alayhi wasallam ni ñaan mooy julit kon ñaan googu saarata ñaanoon ci burba ba ba buur ba mun ko mujju ko munal dara mom la desuwaat tamit ñaan ko boromam ca màkkatal mu karam ndax njaboot googu mu fa bàyyi yonent yàlla ibrahim yaram yàlla nangul ko ko kon nag fa tabaarakallah soxna am na yenn soxna yoo xam ne dañuy jot ñoom ñu nekk vrai soxna ànd ak ñi nga xam ne la leen yàlla booleel fa tabaarakallah ndax yàlla mooy tànneef mooy tànn jël ndeysaan soxna boole kook borom kër boo xamante ne daf koy mottali di ko jàppale te di ko àggalil dafay am ndeysaan yonent yooyu moom lañ leen boole na sox soxna yooyu nga xam ay saxaabiyaat lañ fa tabaarakallah nga gis ni it ma sha allah soxna xajara bam taxawé fofu nak sonu sonn waye nak nag gëm na borom bi ñaan borom bi di ñaan di daw digënté safa ak marwa ba mu mat juroom ñaar yoon ci la ndox ma génn nak ndeysaan ndox mom moy zamzam lima shuriba nga xamné zamzam ndox mom né nañ boko tink tanké ñaan ci loolu ñaan yàlla may lako ko ñaan yàlla may lako maka maaka utal nañ ko ay tiwo mais mënut a génn fenn ndax yàlla lim ci ñaan ndax fi lay yam fii lay yem du fi génn te fii lay yem moo tax zam-zam li ma shuri ba ñaan la euh, euh, ndox ma ndox la ci ñaan suñu borom nangul kon ña dem màkka dañ fexe bu ñu tibbee ci ndox mi nañ ci ñaan ñaani am solo rawatina seen jaamu yàlla nañ ko ñaan yàlla teel leen ko waaye yàlla sàmbal leen seen xol waaye bi dem bay xol nañ ko jubal rek ci yoonu siraatal mustaqim te ñu gëm ko te topp ko looloo jara ñaan nak ndax alal aduna loo fi ñaan kon nañu ñaan suñu diine gi suñu jaamu yàlla yi gën a dëgër gën a taxaw gën a am solo ñu gën a gëm suñu gorom gën koo ragal waaye gën a topp ay ndigalam te bàyyi ay cereem looloo jara ñaan yokk say julli say naafi la dëggu mu dëggu ci yow nga di ko def te di ko boo koy def nga di ci sawar ñiy dem màkk nañ koy ñaan ca ndox moom lu am am solo la yàlla teel seen diine ba mu bañ a rëcc ndax seytaan dafa bëri bool te lu ne la lay def loo fa tabaraka allah macha allah nga gis si tamit sànni jamra ba seytaan a ñëwee ca doom ji ismahil di ko wax naa ko sa baay bi xale bu ndaw mu bëgg laa rey mu delluwaat ca ndey ja ne ko sa doom ji nga xam ne kii màgget na dootu amati beneen doom mu naan lan rey sa doom ngay nangu mu delluwaat ci Ibrahim naan kon yow mu màgget bi nga xam no doom nga naan dangaa géntu ñaan rey sa doom ñoo ñëpp sànni ko yëkkati ay doj juróom-ñaari xeet sànni ko waaye ba muy ñetti yoon kon moom indi sànni jam jamra bële waaye mar wa def sa tawaaf dem sànni jamra waaye macha allah fa tabaarakala dem xarafaat dafa nekk lu amaam solo ci jàmm yàlla te loolu euh, ndeysaan ku ko indi jigéen ndax góor bu demee màkka du def dara lu dul yëkkati armal dox ñuy armal doo sol yëre doo sol dara lu dul laxasu armalu dem def say tawaaf kon nañu bàyyi xel ci loolu ni yàlla sagalee jigéen yoo xamante ne ni wóolu na boromam bàyyi na ko xel waaye tamit ragal na boromam waaye mu ngi ñaan boromam te yaakaar ko kon yàlla soo ko soo ko jubloo rek mu nàkkal la ala kulli xaal fa tabaarakallaa ndax buñ newoon tey jigéen sa doom jëkk jël na jumaa ji jënd terrain bi tabax ko ba jumaa ji mag ndeysaan ñëpp di ci julli ndaw sa day bég mu doon fiertem rawatina nag jigéen ju ñuy wax naa sa dooma tabax kaaba ga kaaba ga ibrahim ay ismahil ñoo tabax ndeysaan ba mu àgg fa tabaarakallah yàlla nag ne ko wooteel wooteel ci woote yu sell ya wooteel ci woote yu màgg yu tedd ya moo tax ku ñu woo rek danga ñëw màkk ala kulli kenn yàkkamti te yàlla ci yàlla boole boole ci képp koo xam ne rek ndeysaan bëgg nga ziyaara ji suñu borom waaye bëgg nga ziyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam say tawaaf ak farato yooyu ñu ñu digal fa tabaarakallaa ndax yent yàlla ibrahima ba mu wootee nag ndeysaan ku nekk dina ñëw ku ñu woo rek danga ñëw bu soobee rabbana fa tabaarakallaa waaye loolu mooy histoire Saarata Haajara ñu nekk ay jigéen yoo xam ne ay grande dame lañ ay ay référence lañ fierté lañ ci jigéen moo tax jigéen foo toog war nga bàyyi xel ci sa bopp war nga bàyyi xel ci say jëf war nga bàyyi xel ci sa melo ala kulli hal ndax ñu admise comme soxna yee nga xamne fa tabarakallah soxna soxna Asiya ndeysaan soxna firahuna la won te tay bokku na ci soxna yonenti yonenti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax bëgg yàlla gëm yàlla te borom kërëm yéfer bu gënon mak ci yéfer yi la demon na ne ba ne moom mooy yàlla ndeysaan jël na ndeysaan di ray soxnam sosu Asiya di ko ray di ko di ko mbugal takk ko ba mu dëgër boole ko ay nit ñu yor ay doj takk ko ak ay chaîne pour sànni ko ko mu dee waaye nag soxna sa ñaan yàlla suñu borom ne ko musal ma ci ndeysaan firaawu na mii ak dee bu bon bii mu ma nar a rey ak dee bu metti bii mu ma nar a teg musal ma ci moom waaye suñu borom ca la yónni malaaka ne ko dawal gaaw nga dem waaw yónni ko ne ko dawal gaaw nga rocc ruuba laata xeer boobu di agsi nga xam ne rocc nañu ruwam laata xeer bi di agsi te fekk yëgu ko muy muy muuñ ndeysaan di ree firaawu na naan waa xooleen kii xanaa dafa dof ma di ko mbugal muy ree da fekk na ndeysaan ruuga dem na jëmm ji rek ma fa des ruuga dem na kon nag euh, méngoo ak sa borom bëgg sa borom li la koy may mooy attaqwa ndeysaan attaqwa di nga dem ba dugg ci miftaaxul wilaaya ndax yàlla dalay may nga am wilaaya am loo xam ne loo ñaan rek da ngay borom bi day da la koy nangu loo bëgg rek borom bi da la koy nangu doo da ngay xalaat sax di di bëgg sax suñu borom wan la melo may la li doon xalaat te fekk waxu koo ko kon nag yàlla ñu yàlla may wilaaya may ñu wilaaya may ko ndeysaan képp koo xam ne rek macha allah mu ngi wéetal boromam. nga gis di nag euh, soxna ndeysaan ki nga xamante ne nii soxna Khadija radiyallahu anha soxna su baax la woon. ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël alalam jël askanam yëpp jox ko rasulullah alayhi salaatu wa salaam ndax bëgg ko gëmal ko wilaayaam gëmal ko wilaayaam. ndax keroog ba mu ñëwee naa zamalu nii zamalu nii dafa jeex la ne jomina nako sàng nako mur waye moko dalal ci dal yi dal motax jigen day dal borom kërëm fexal ko bañ ko fitnal aha féexal ko bañ ko fitnal jigen du fitnal borom këram fexal ko bañ ko fitnal jigen non lay mel ñu dee wa tam soxna Aïcha nekkon xaritu borom kërëm daan waxtaan ak mom lu bëri xam ci histoire lu bëri ci yëneent bi diko doon nettali sax gannaaw bi yëneent bi génné aduna kon nak jigen dina jege borom kërëm di wax ak mom di waxtaan ak mom ci walu yu ci fu ne ci walu diineem waaye gën a xam ndeysaan gën a ragal yàlla waaye gën a nag jox respect ak cër borom këram buñ fa jógee nag ñu dem ci jigéen tamit ba tey mu nekk ndeysaan soxna ba pare nekk xaritu baayam muy soxna Khadija xat soxna Fatima radiyallahu anha nekkoon xaritu baay ja waaye ndeysaan nga xam ne moom baay ji sax rawante wuñu baay ja ba mu génnee yàggul ci la génn waaye dafa nekkoon xaritu baay daan waxtaan ak moom ndeysaan ñuy sottantey xalaat mu rafet loolu te taaru kon jigéen dana nekk tamit ndeysaan xaritu baayam waaye macha allah nekk jigéen boo xam ne defar société fa tabaarakallaa xafsatu tamit nekkoon na jigéen joo xamante doomu soxna si yeneen ci bi la woon waaye doomu Seydina Umar la woon waaye nag doonoon na koo xam ne moom la ñu dénkoon alxuraan gannaaw bi ak Bakri génne àdduna Seydina Umar génne àdduna xafsatu lañ joxoon ndeysaan macha allah téere téere alxuraan boobu muy kaamil mu téye ko kon bu jox naa jigéen soppante bu wóoru ñoo koy wax ñoom lay àndal waaye nag l'islam sax d'accord ci ndax moom la ñu dénkoon téere ba mu téye ko ci téere bu sell ba tey ñu mun a jàng alxuraan karim jigéen ñi njëkk dee ci islaam ki njëkk dee ci islam gëm l'islam da njëkk si dee ñu njëkk ko cee mbugal ba rey ko jigéen la woon kon nag na jigéen gëm boppam jigéen na gëm boppam dina dem ba suñu borom bi allah subhanahu wa taala yéege ko ndeysaan def ko ab xutbu waaye def koy tamit may ko ay wilaaya may ko tamit ndeysaan loo xamante ni ala kulli haal képp ku ko gis gis ko ci xar kanam gis ko ci jëmmam kon nag jigéen dafay jaamu boromam yàlla ñaari nit la indi ci àdduna muy góor ak jigéen bu jigéen ñi jël jaamu yàlla bi rek wékk ko góor ni jigéen dafay jaamu boromam jigéen day wéetoog boromam jigéen day déewanteeg boromam jigéen day sàmm boppam sàmm njabootam te di ñaanal ay njabootam ndax foo mën a toog del ñaan waaye jiital ci ñaanal sa njaboot foo mën a nekk tamit del bàyyi xel sa borom waaye del ragal yàlla di maanu di musal sa bopp ci làmmiñ ak lu sa yoon newul ak musub ak balaa ak jëw ak kiñaan ak soxor ak naafiq ak fumiste ak jaxase ak nekk koo xam ne toujours mu ngi ci dëkk ci safaan jigéen day musal boppam ci loolu te di ñaan yàlla musal ko ci ala kulli xaal nit nag day am day pexe ndax dañ naan boo bëggee baax forcé toppal ñu baax ñi di nga baax waaye soo bëggee bon moom toppal ñu bon ñu rek léegi nga bon kon nag li olof njaay naan baax waaye boppam bon waaye boppam su guddee fan xam ci dara yàlla daf koo dëxañ ci góor ak jigéen yépp kon nag nañu jubal ci yoonu siraatal mustaqim ñaan yàlla sàmm ñu fa sàmm ci suñu njaboot yàlla labal ñu ci géeju lislaam xamal ñu neexaayu islaam ndeysaan te faat ci lislaam yàlla ñu yàlla sàmm sàmm suñu njaboot sàmmal ñu àdduna bi def ci Sénégal gi jàmm ci réew mi jàmm def fi salaam loolu fi sutura te xam ne réew ndeysaan réew mag yi baax yi la ndax maam Serigne Touba Xaadimu Rasuul ndeysaan mu ngi fi ak mag ñu bax ñëpp te ñaan nañ fi te liggéey nañ fi loo xamantene Sénégal am nañu njortu ne dara dara dara du fi yëngatu ci loo xamantene ne safaan lay doon bu bu yéeme ba jéggi dayo dafa fekk nag ni jamono bu ñu jëlu xol yi def ci yàlla a taqwa muy ragal yàlla wala ñu jël li nga xamantene ne mooy fitna yi ñu fay ko ragal ya ñu fay ko ak ndoxul ragal yàlla dara du fi fay day xal di jëf-jëfi rek kon na xol yi njëkk ragal yàlla bépp jëf bu ñu gis rek fay ko ak ragal yàlla loolu moo ñuy dimbali moo tax nañu desuwaat suñuy xol ak suñuy xel ci ragal suñu borom ak jël santaane yi suñu borom sant te bàyyi tere yi loolu moo ñuy muccal muccal suñu njaboot axiru daawa naam alhamdulilahi rabil alamin yàlla yàlla mi ñu dugg ci tabaski bi ak jàmm ak salaam àggale ko alhamdulilahi rabil alamin yàlla am na mën na yàlla ñu yàlla may may leen may mboolem julit te doolu ñu jàmm allahuma amin Page TV ëttu soxna yu baax yi page yu ñëpp la mu ngi lay ñaan nga aimé sa page Facebook abonné sa chaîne YouTube te yaatal say xarit ak say am di jàmm Page TV ëttu soxna yu baax